yéegagul fukki at ak ñaar ni ki démb exploit bu rëy dañuy daal di def tax gos ngeen ko ak journal bi lay di stade ni ñu leen ko tegalee noonu nag ngeen gis nga gaynde yi ñuy daal di jubilé stade daal di xam le ne kon Lionceaux yi daal di nañu yegg ca demi-finale naka noonu gis ngeen ko ak journal bi lay di record les Lionceaux en demi-finale et au mondial bien évidemment parce que boo ko seetloo ndaw yi daal di nañu ci demi-finale bi naam waaye tamit daal di nañu dem ca coupe du monde seen catégorie ndaxte ñeenti yegg ca demi-finale ba ñoom ñooy daal di dem représenter Afrique ci boobu lépp compétition gannaaw ba ñu fàttali ñu ba nga xamante ne ni ki démb équipe bu Sénégal ñoom ñoo daal di daan équipe bu Afrique du Sud daan ko juróomi bal ci dara muy loo xamante ne lu am solo fekk ñuy waxtaan ci wàllum tàggat yaram foofu la ñuy daal di desani ak ki nga xamante moo fi nekkoon jawrin bi yor wàllum tàggat yaram ci biir réew bu Sénégal di eh, kii de di Yankhoba Diattara Yankhoba Diattara nga dafa mel ni nag fi mu ne nii euh, mu yore woon mbir ak koppar yi nga xamante ne dénkoon nañ ko ko dafa am lu ci daal di luubal ni ki démb ba léegi ñu ngi koy daal di waxtaanee tey journal bi li le peuple daal di ci wax gestion du monde du mondial 2022 euh, le carnage donc financier a parlé de ce journal déggantaan ci li nga xam moom mooy kon alal bi ñu ko dénkoon ci atum 2023 bi li fàttali Sénégal ci la ñuy dawal ci 2022 jeexitalu 2022 dugg 2023 bu ñu fàttali ko novembre décembre ci la dem ci li nga xamante moom mooy coupe du monde Qatar te Sénégal daal di génn ci li nga xam ne nag quart de finale Angleterre euh, ko ñu fàttali nee nañ daal am na ab koppar boo xamante ne daal fi mu ne nii faw mu daal di koy leeral ñu wax ci beneen ponk ba tey ci wàllum koppar ak ni nga xamante ne moom mooy euh, maanaam waxi ci jëm ci ci biir euh, wax luubal koppar waaye tamit lu jëm ci wàllum naka noonu lu jëm ci wàllum droit humain maanaam ak ak yelleef doomu aadama yi ci biir réew bu Sénégal waaye tamit gouvernance jëm ci wàllum démocratie li la yëpp bokk na ci li nga xam mooy rapport bu Africa Jom Center génne euh, ni ki démb daal di koy fësal journal bi di Dakar Times ñëwaat na ci gis ngeen ko nag ak natalu Africa Jom Center di kii di Alioune Tine dañ ci ñëw ci biir xibaar yi soxna ci àlalu ak beneen mbir boo xamante gis ngeen ko L'As Quotidien naka tamit ci loolu lay daal di wax daal di gis ne Afrikajom Center nee na daal démocratie ci biir réew bu Sénégal dafa mel ni dafa daal di dellu ginnaaw bu baax a baax ci taxawaay bi nga xamante ne moom la ñuy daal di gis kon ñoom waa Afrikajom Center beneen yéenikaay muy nag li nga xam moom mooy Vox muy wax ci li nga xamante moom mooy taxawaay wala sax jafe-jafe yi nga xamante ne gis nañ ko ca diwaan bu Ngor fan yële maanaam barki démb xam ngeen ni amoon na ay yëngu-yëngu yu am solo foofu la ca diwaan bu Ngor ñi nga xamante ñoom askan wi daal di laale ak force de l'ordre et de sécurité yi noonu nag la ñuy daal di delluwaat ni ki démb ca diwaan bu Ngor journal bi la di Vox Pop daal di ñoo xam ne kon ci bés bi nga xamante ne moom moo topp bés bi nga xamante ne jafe-jafe amoon na fa ba léegi daal mën nañu daal di gis maanaam conséquence yi nga xamante ne nag yooyu lee ay altercation amoon na ko foofu le ca diwaan bu Ngor ak yeneen yoo xamante ne nag xew na fa daañu ci ñëwaat ci biir xibaar yi njiitu réew bu Sénégal la Macky Sall naam jëloon na fay dogal waaye dafa mel ni euh, dogal yooyu nekkul loo xamante ni daal ñëpp ànd nañ ci ca diwaan bu Ngor Ndaw yi ñu bëri daal dinañ wax daal ne du ñu séddoo boobu lépp suuf ak njiitu réew bu Sénégal la Macky Sall moom ngeen koy gis noonu euh, ci naataal bi lu euh, maanaam naataalam ngeen di gis noonu ci xëtu njëkku yéen kaay réew mi lan lañ ci daal di wax ne daal Macky commencé entre manif politique et grève syndicale maanaam fi mu ne nii mu ne nii na nekk bu tëddee du ay manifestation yu bëri ñu ngi koy daal di euh, dëgmal ci biir réew bu Sénégal jëm ci wàllum politique ak Yewwi Askan Wi fukki fukki fan ak juróom-ñeent naka noonu F24 daanaka àjjuma lañ koy def maanaam fukki fa ak juróom fukki fan ak ñaar yeneen ni ay ñax ñaxtu yoo xamante ne ci wàllum jàng bi la doon CUSEMS e ak SAEMS ñoo koy daal di naka noonu SAED loolu yëpp nekk loo xamante ne ay mbir la loo xamante ne njiit réew bu Sénégal fi mu na ko daal di lijjanti ñu fàttali nañu ca palais présidentiel ba la ñuy defee seen i doxub ñaxtu ñu dellu si waat ci journal bi la di Vox Pop comme ni ñu ko defee ci kàllaamay nasaraan bi sa wax ci